le programme Sénégal Vision 2050. Euh, pour remplacer le ps e, Bougan Gay, les priorités ne sont pas au Grand Théâtre. Euh, qui euh, Bekay ah. Effacement d'Edbek de la presse. Ousmane Sonko, j'avais comme l'impression que Ousmane Sonko ne s'adressait pas à nous journalistes en fait. Patron de presse, Oui. patron de presse. Oui ñu xam kan mooy Ousmane Sonko ak ah. Diomaye. Mhm. njàpp bu fekkee ne Ousmane Sonko ak Diomaye. oui surtout Sonko. Mm. ñi ñëpp déglu nañ histoire am. Mhm. ba muy nekk impôt et domaine koo xam ne waxuma la domaine politique de. Mhm. da ngay wax ne ay 2012 2013 2014 2015. avant ñuy créer seen parti bi. lan lañ wax. ñëpp dañoo seede ne waa jii nii mooy ba muy nekk impôt et domaine. ak loo ko corrompre corrompre du ko nangu xam nga la lay wax. lii dafa war a dugg ci xaalisu nguur gi. il faut ñu xam histoire. Pastef lan moo leen pousser ñu créer Pastef. parce que dañoo wax ne ñoom waxtu bu ñu doon añ daan toog suñu añ après di waxte actualité dëkk bi. mais lu leen jaaxal mooy homme politique yi nii li ñuy pasar pasare te duñ ko dugal ci farata. mais est-ce jutut ñun ñuy liggéey pour ñoom ñuy yàq loolu war nag. kon ñun nañ leen liggéey nan lañ war a def ñu ne nañ leen créer parti. Mm. mais ci biir créer parti boobu fan lañ war a def est-ce que war a ci parti politique ñu ne noonu nañ leen créer suñu moom ba ndegam ba muy nekk fonctionnaire de l'État hmm. lay wax ne nga nit ñëw di ko corrompre nag am ma jox la 100 millions lijjanti la fi nit ab pàkku terrain waaj na ko sama dama a jox moo la ko jox mu ne moom lu doom bi dem moo tax sax xaaral man ma dem ba mu dee def na ko yàlla tax parce que mooy sama liggéey mm-hmm. ndegam kooku da ko doon def te amatuñu woon benn influence rawatina ba ma xam ne moo téye jàjj yi maam da war a fay pour mu dugg ci réew mi kooku waru leen a baal mm. koy koy xalaat ndalee baal xamoo yow xamoo ñoo jàkkaaroo dama dégg la démb sëñ Bass Abdou Khadre di ko wax mu ne impôt dafa nekk loo xam ne ku nekk da nga koy war a fay. c'est vrai gis nga psychologiquement ñun bee boo ñu préparé te am te aussi tamit ci surtout bés bi les jours ñoo ko bind te bés bi ko waa ñoom ñooy groupe E-Média e mënuñoo wax ne ñu ñëpp ñu dégg ko fi E-Média matagul deux ans wala deux ans et demi lay mat ba ñuy wax ne transmission coupe du monde mm-hmm. budget bi ñaat la woon du deux milliards mm. nga bëgg a jënd yi yow daanaka sa say élément sax nee na presque 6 mois yi nii fayoo leen waaye nga bëgg ñëw taxaw na tey jii ne noonu dañuy baal dette fiscale bi moom mënul la su demee jënd ji kilo gerte dañ ciy dagg yow mii kazaalik am koo xam ne tàngal soo jëndee 100 francs dañ dagg mhm. mais ñoom lan mooy da ngay ñoom ñiy gañe sax bi di gañe ci ay ay ay marché état na doo mhm. a fay moom kay lan moo xew mooy nañ waxtaan ñu puusal leen ko ñu jéem leen ko maanaam ñu jéem jéem nan leen organiser ba jéem koo fay loolu daf ci am solo ñu bàyyi ci xel xam ne loolu moo fi sës mm-hmm. ak duñ leen baal mm-hmm. parce que taxawaay ba ñu taxawaay yoon démb moo waroon tax sax ñu waroon jomb taxaw sax pour ñu leen di baal mm-hmm. xam nga damay wax ne ñoom nekkee dañoo nekk ci benn xeex boo xam ne malheureusement

xam nga lan la indil 40 000 francs dañ leen su ngeen ko indi du ñu leen maam su ngeen fayut 40 000 francs yi duñu leen ubbil ndegam ñooñu lañ leen toog xam la moo tax ñu indi leen période bi mm-hmm. mais période tabaski la ku dekk ci salon day day lëtt ñu dem magasin yi dañuy jaay léppay dox mm. mais mairie yi taxaw seen kanam ànd ak police ñuy tëj pata tëj ñoom ñëpp leen tëj leen parce que dañ fay amuñu habitude leen fay leen su ngeen fay dañuy tëj yow ñu ngay gagné ci marché état na doo fay. Mm. waxante deug nañ fay rek. c'est vrai ñu fay. <laughs> ñu fay rek. ñu fay rek Bécaye on reste avec euh, vous avant ñu dem si euh, Moustapha. Mm-hmm. Euh, walum aussi le dossier Prodac aussi nga xamné vraiment nit ñu ngi koy xaar ki du Ousmane Sonko ñëwaan na si de façon plus large am sax façon bu comique bu mu ko. waxee mais mun nañu wax né carrément ce dossier Mambay Mbaye Niang moom. Mm-hmm am na ñu doon wax ne protocole de du Cap Manuel moom dafa mel ni comme Ousmane Sonko a été clair euh, la justice dina dem euh, jusqu'au bout de cette affaire. waaw xam nga mbërum Bambey ñaam oui ak Ousmane Sonko dafa am benn ay alxuraan bu mu ci dikkal léegi. yow tamit da ngay aaye. waaw man damay aaye nag <laughs> je je je suis ah, fier ah. man man nee naa la kii imam la kii moom moom day day da lay waxtaan di la ko jox moom. xam nga alxuraan dafa benn wax bu am solo mooy qul jaal xaq wa zaaxal baatil. innal baatinu kaana zahuuqan mun a dëgg su fen day dem. ba bis pencam yàlla dootul ñëwaat xam mhm. nga seetlu ay la lay utilise fois fen. Mhm. da ngeen baal xam la moo tax ma waxee noonu. mais parce que nit ñi dañoo amul habitude di dégg moom bi mais sooy jàng arabe xam-xam mais kasabta lay wax. Mhm. kasabta alxuraan noonu la koy waxee da kasabta mooy fen nga. Mm. c'est-à-dire que alxuraan dafa wax ne dëgg su ñëwee fen day dem te ba bis pencam yàlla du ñëwaat man dama doon wax naan ay dossier baam dossier bu nekk war nañ ko mën a baale mais dossier bi moom dañ ko war a attewaat ñi ñëpp xam lan mun la demee. xam nga li tax. bi nga ko deful sax loolu da koy décrédibiliser. Mm-hmm. parce que y a des chroniqueurs y a des politiciens yoo xam ne ñu ngi wax naan. Euh, euh, protocole Cap Manuel dafa am. donc euh, mais mais ñaari amoon sax dafa am ci am solo. mooy mbiram dossier Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko oppose ba muy opposé wu. Mm-hmm. lan lañ ko doon wax ñaar ñoo ko ñoo ko xañ ñoo ko xañ lépp lu mu am ñàkk ñaar yokk làmmiñam bi ak ak leneen li. Mm. kenn ko tudd yaa ngi mais comme Lamine mi ngeen doon wax lu wax naan du wax lu ko nga gis ay kilifa télé. Hmm. da du dafa mëna wax di wax lo ko c'est un cadre au niveau de la sonatelle. mais ñuy waxtaan ni boko ma mënu non non non wax lu ko mais yow ñun gis ko Amadou Ba na rapport Amadou Ba Dakar moo ko jox waa Dakar ak moo ko fuité. ah loolu la ñu wax ñoo ñoo ko njëkk a ñu xëyaat loolu ngeen wax ko ci télé bi ngeen loolu musul am. parce que waa wax ko seen noonu la mais jàpp xam nga la moo gënoon garaaw mooy xew ci réew mi dawal kotu jakarta yi duñ liggéey. gouverneur génnee ñu mobiliser police mobiliser gendarmerie ay nit ñàkk ci seen bakkan li gën a garaaw muy ñu utiliser justice di xeexee. Mhm. parce que ñëw nañ première bi tubaab ba ñëwoon ba procès bi jeexee ban génne lan la apaisement la. oui mais apaisement boobu am ñu wëlbatu ko procureur de la république def appel te loo xam ne yëpp civil la. Mhm. maam du ko utiliser toog ci télé bi di ci wax loo xam ne lii te ñun ñëpp xam na ni lii lu ñu wax du dëgg mais yàlla mooy def lu ko neex ci coobare rek yàlla googu nag ka ngeen doon wax ne lu mu doon wax du dëgg far dossier bi ñëw ci ñëw ci ñëw ci taabalam. Mhm. léegi nag dossier boobu comme ñëw na ci taabalam te aussi wax na benn wax pare.

parce que waa bu nek nekk te bu mu gis ci histoire senegal ben procès bo xam même pas un mois. Mhm. ñu jugé première instance bu ko yóbbu deuxième instance ci moins de deux mois. Mhm. délai bi sax jeexagul. délai bi sax jeexagul ñu xam droit ñum ne musut am non seulement sax délai bi mais nga gis ay dossiers yo xam ñu ngi tok maam euh, cour suprême di xaar 4 ans ben bo xam ne matagul sax 6 mois cour d'appel même pas 6 mois gaay yi jóg bëgg vidéo lépp mais su boobaa lan lañ wax. nee naa nag loo tax ma ci ci problème mu dossier bobu xam nga dossier bobu dafa am lu reetaan lu ci feeñ. am na ñoo xam ne yàlla yëkkati na leen ci ba faw mhm. mais am na ñoo xam ne moom ci histoire bi dugg nañ ci histoire nag ñaar nga ciy duggee dañ ciy duggee positivement wala négativement <laughs> tey juge Sabassi foo wax ñu ne juge Sabassi mhm. ak co ak juge euh, Thione mais parce que ba ñuy àq ba ñuy àttee àttewuñ pour lu neex Ousmane Sonko àttewuñ pour lu neex Massamba wala mu la ma demb mhm. dañ doon àttee tax am xaalis seen la wàcc ilaay dañ yàlla rek tax àttee googu ñu doon àttee nag tey tax moo leen tax tey ñu dugg ci képp ku ci doon wax ak leneen loo dul wax moom dëgg yaakaar naa ne ci fan dina leer li nga wax dëgg la Ousmane Sonko pour mu gën a mën a set daram ah. xam nga dañ nag euh, maam mm. nit génn ci bakkanam mm. ndax xam nga ne der boobu dootul set mm, mm-hmm. ragg sa der ba ay bakkan di ci rot est-ce que da koo jar ci àddina mm-hmm. parce que li ma waxal nee nga IGF la wala man wala IE maam kii la ci mooy ndaw ndaw ba ay bakkan di ci rot nga xam ne kon fi nekkutoon ne euh, pour ragg der la rek mm-hmm. mooy parce que am na leneen li ngeen ci xalaatoon loolu la ngeen ci xalaatoon amul de mooy waa ji nekkul candidat mais tey ñoom ñoo yor pouvoir bi yéen a dem sax ba ne ka falu kii moo ko fal bal sax bàyyi ñu ne non non non euh, dootuñ tiir ci par exemple sax ci waa ji la ñuy dóor. Mm. mais kooku bu dossier bi ñëwee ci kanam amul a a mm. yooyu yëpp. su boobaa nag daan xam lu ci gën a leer ak ñi nga xam ne dañ ci doon def seen loxo ak politique yenn commande yi ci nekkoon yëpp surtout duñ doon mobiliser armée bi di mobiliser police mobiliser gendarmerie BIP GIGN lépp rek. pour de dañuy seetal deru nit dëgg-dëgg nekkul pour mu set. macha allah Bécaye euh, loo kàddu yi nga xam ne. Euh, kii di euh, nu ñu koy waxee ci sax Bougane Gueye yëkkati na ko aussi après.